boo leen xoolee seen gauche da ngeen di am lumière ngeen xool droite di ngeen am ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ISB e bu Hann bel dans quelques secondes arbitre bi daal dina siffler coup d'envoi bal bi ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ISB e habillé en orange ñoom ñoo ko yor ñoo ngi noonu di dawal bal bi bal baa ngi si numéro 15 bi latéral gauche bi mu ngi wut solution centre na ko attention daal dina ko mbëkk delloo na ko attention oh! pour USB e bu yaraax Aziz Kane le capitaine moo dugal moo ibi bal bi 1-0 pour yaraax 1-0 pour yaraax gis ngeen action de jeu bi ni mu rafetee touche la ci côté droit terrain bi ñu daal di ko sànn ci numéro bi numéro 8 bi daal di passe ki nga xam ne moom mooy arrière gauche bi mu daw ak bal bi mètres centré défenseur bi mbëkk ko mu ñëw si tànku capitaine yaraax bi mu contrôlé bal bi dóor ko mu dugg 1-0 pour wa USB ñi nga xam ni ñoom ñooy waa Hann Bel-Air Sport attention arbitre bi nee na leen bi ndeysaan numéro onze bi mooy Alpha moo def noonu gis ngeen passe boobu lu mu rafetee attention Cheikh attention capitaine bi oh la la la la la en tout cas ESB am na lu ñuy proposé am na lu ñuy jéem ñoo ngi koy wane waa lumière ñoom tamit kenn demul ñu des. gaa yaa ngi si match bi boobu ba léegi di doxal ñaari équipe yi arbitre baa ngi wax ak ki nga xam ni moom mooy défenseur centrale bi lumière. arbitre baa ngi wax ak moom li ñuy waxante nag xamuñu ko parce que mënuñu ko dégg waaye daal am na lu mu ko wax muy lu am solo muy lu am solo li Mak TV di def attention gaa yaa ngi koy joxante attention Cheikh attention deuxième bi deuxième bi pour USHB Hann bel moo dugal seen deuxième bi seen diggante ak ñi nga xam ni ñoom ñooy waa Lumière numéro 11 bi moo ko dugal. le numéro 10 moo tenté daal di dóor gardien bi daal di génnee bal bi mu ñëw si tànk numéro 11 bi mu yokk ko si camp yi mu nekk deuxième bi 2-0 pour USB. ci Suuxa. Daaru Sam du ñu gan ci loolu quoi waaw parce que ku xam sëñ bi xam na ne moom léppam. ah professionnalisme la koy defee waaw. jërëjëf coach yaakaar naa ñu bàyyi la nga préparer équipe bi muy coach su Darou. ISB ñoo nekk noonu habillé en orange arbitre bi daal dina siffler match bi bal bi moo ngi si tànk waa Lumière ñoom ñoo joxe coup d'envoi deuxième mi bi. pour Hann bel Sport la koy def waaw di remercier aussi waa Mak TV Sénégal si turu njiit bi ki nga xam ne moom mooy Alidia. si geste bu nice bi nga xam ne tey mooy yi gars yi di footballé xale yi yaraax yi attention Cheikh oh quel but quel but quel but nekk doom si Baba Ndiaye le coach ndeysaan moo dugal troisième bii bu am solo bii bi nga xam ne vingt cinq mètres la gannaaw noo gisee bii mi toog sama ginnaaw bi ah, bu rëy la de wax dëgg yàlla bit bu rëy la dugal moom sérieusement bit bu rëy la dugal waaw nañu góorgóorlu rek te bu ñu góorgóorloo dinañ mën a mën a dóor waaji lu bari quoi parce que ñoom ñoo ko mën sérieusement nañu góorgóorlu rek nañu góorgóorlu bu ñu góorgóorloo dina mën a dóor waaji sérieusement loolu la waaji wax mu nekk bii bi nga xam ni daf may fàttali que keroog finalu Bayer Leverkusen Real Madrid Ligue des Champions bii bi la Zidane dugal woon daal di am déchirure ñu dem coupe du monde 2002 mënul woon jouer bii bu mel ni moo ko yóbbee woon tey moom la Cheikh dugal fii si stade du bari bu Guédiawaye si kanamu papam Bab Ndiaye nekk si banc bi attention ñoom waa lumière ñooy doxal lumière lumière nee naa leen stade bi leer na nañ. ah boobu jàll na. waaw ah, la woon. Ah, boobu orso woon. waaw. Ah, kon dañoo xaw a am tuuti retard. non du retard sax sama réalisateur bi moo aay rek moo la koy indil waatal noonu. ah ok d' kon baax na. kon di la jaajëfal ndaxte gis nañ sa élément yi nga yóbbu Dakar Sacré-Cœur te bu ñu demee seetaan leen foofu dañuy nekk ay ñi nga xamante ne ña fa nekk dañ leen bàyyi xel bu baax. Mm-hmm. ña nekk dañ leen di bàyyi xel bu baax a baax a baax mm-hmm. parce que dem nañ seetaan yi ku ci mel ni Fallou papa mm-hmm. moo nekkoon Babacar nekkoon grand gardien du Sénégal boo demee seeti doomam Dakar Sacré-Cœur muy football da ngay kontaan président quatrième bi marqué par Kala mooy soog a dugg coaching quatrième bi pour USB Union Sportive de Hann Bel-Air Kala Sarr doomu Yaraax moo ko dugal mooy soo ko dugg daal di dugal première balaam loolu am na solo ñoo ngi nekkoon en rek ak président ma bàyyi la nga wax sa xalaat. mais ay duñ def lu kontaan Hann Bel-Air Sport di wane ci boppam rek te match bii nii boo ko xoolee xam ni Hann Bel-Air Sport am na talent kon boog na ñëpp ñàpp bàyyi ma bàyyi leen ngeen yeggale seen match. président du ma la bàyyi du ma la bàyyi. président du ma la bàyyi nga demee noonu. <laughs> waaw président ñu gis ni non dina ñëw si match bi mais président dafa am loo xam ni benn doomu yaraax. nga xamante ni ña nekk ci diaspora beeg ña nekk ci kër yi ñëw ñu stade dinañu am exclusivité di mën a suivre seen équipe bi nga xamante ni mooy bel nga xamante ni ñi nekk aan yëpp dañu jël seen yaakaar teg ko ci ñoom muy laa mairie di ak yeneen structures yi nga xam ni ñu nga fa. toujours naka la mairie doon def ak amical éducateurs yi. ak encadreur yi mooy toujours accompagner leen ñu man dem di participer ci tournoi boobu nga xam ni bii boobu nga xam ni chaque at day am ñu gungewaat ñi nga xam ni mooy xale u yi war a dem fële ca fos sur yàlla may leen ndam yàlla sàmm leen bu baax a baax loolu moo nekkoon kàddu yi Aziz di kontaan bu baax a baax ci waa Mak TV. waaw monsieur le maire du la bàyyeegum parce que loolu am na solo mais aussi ñu gis ni Hann Bel-Air bu yàggul dara. la commune de Hann Bel-Air lal nañ fa benn gazon synthétique mun nañ ne bi gën a baax ci commune Hann bel la wala si Sénégal parce que gis nañ maître Augustin Senghor président fédération football sénégalaise ñëw nañ fa gis nañ le anté nationaux comme ñoom El Hadj Diouf di ko jox ki nga xam ne moo dugal quatrième bi mu Kala Sarr gis ngeen ko Pape am Sarr tour yaa ngi en direct si Mak TV Sénégal e ñu bàyyi la rek nga wax ñu sa impression par nag sunu sunu sunu xalaat ak sunu dëpp dana war a jouer tamit si terrain yi ñu war a war a jouer loolu moo tax ñu def suñu tournoi bi ndax tournoi bi am na xale yi nga xam ne. Ndour dama lay dagg Ndour dama lay dagg Union Sportive de Hann Bel-Air. arbitre bi daal di siffler li nga xam ni moom mooy fin du match bi match bi jeex na si diggante Yaraax ak Lumière.